maaleykum askan bi nuyu naa leen ziar naa bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen màggal di am mbégte kontaan toogaat bi Grand Yoff TV ëtt Fatou macha allah di ñaan yàlla rek commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah rabil alamin di julli si sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye di am mbégte kontaan bu baax a baax muy heure bu baax bi muy 10 heures 11 heures fas yéene ànd ak nga xamante ne mooy sama producteur muy Tafa Tafa nuyu naa la ziar naa lu baax sama xuloo waale. waaw Fatou maa lay ziar di la bëgg di la jox sa wàccuwaay di la nuyu. macha allah di nuyu ñëpp ñuy seetaan à travers Grand TV. Mm-hmm. sant yàlla mooy yeewoo ci jàmm. di ñaan yàlla ñu commencé émission bi comme ni ko daan commencer mm-hmm. fii ci Grand TV ci bisimilah man rahim. terminé ko ci alhamdulilah rabbil alamin ah, macha allah xam naa tey dafa dafa dafa yeewu rek naanu ko fa yaram bu tàng bu ma kaa sëpp waaye dafa man duma la may dara macha allah ñu fas yéene waxtaan la nga xamante ne mooy ñàkk yi ñi ñàkk yi naka la ñu nga xamante ne amuñu seen loxo jotuñu seen ginnaaw ñi xamante ne tamit seen loxo jotu seen ginnaaw naka la ñu mën ak ñu am yi tey loolu la ñu fas yéene tey indi biir Grand Yoff fas yéene si waxtaan yaatal ko li may faral di wax rek chaque rek dañuy xool askan lañuy dund ñu daal di ko indi fii Grand Yoff TV di ko partagé ak yéen di ci waxtaan ak yéen rawatina nag waa bitim réew yi nga xamante ne ñuy seetaan ñu suivre di ñu bàyyi xel bu baax a baax di bu baax a baax dafa tey suñu émission tey mooy ñàkk ak am-am ku ci nekk nan la war a comporté woo. waaw Fatou li nga xam na solo trop trop waaw parce que dëkk bi ñaar ko seq ñi am ak ñi ñàkk. Mm-hmm. waaw ñi am ak ñi ñàkk ñoo seq dëkk bi. Mm-hmm. man si ñu may si euh, ñu may njëkkee mooy ñi nga xam ñoom la yàlla def jox teraanga. Mm-hmm. ñi nga xam parce que ñàkk sax amul parce que booy dund deewoo rek. Mm-hmm. am wér gu yaram rek xamal ni ñàkkoo dara. Mm-hmm. ay dañ ñi yàlla jox teraanga ak ñi nga xam ne yàlla joxu leen yàlla bu la joxee alal dalaa dénk. dala dénk mayu la parce que tey di nga gis benn nit boo xamante ne mu ne ci famille bi li ci ëpp ci euh, famille bi maanaam moom rek moo ci am xaalis mu ngi mel ne tey dañoo jël wërsëgu famille bi dénk ko dafa war a partager. dimbale ñëpp te yàlla tax te bu mu ko ndamoo ndax fii koo gis yàlla moo ko jox fii koo gis yàlla moo ko jox mais ci alxuraan amoo fu amoo fenn fu yàlla di ndamoo naan maa jox diw kon nit waru fi mën a jox doomu aadama ba koy ndamoo yaa nit ki da ko war a dimbale teg rek te yàlla tax mais da ngay gis koo xamante ne day toog di naan man suñu kër man rek a fa tekki maa fopp xaalis loolu du sens boo tekkee sa famille da ngay fexe ñëpp tekki mm. mais boo koy ndamoo ñàkk jom la ñàkk fayda la sax wala nga génn si biir war a dimbale sa famille nekk ci biir di di baatare ci àll bi ak affaire sa famille te bu ñu naan famille du ñu nga bokkal ndey ak bàyyi rek famille dafa yaatu am na ñu nga bokkal ndey même dëkkandoo bi nga nekkal ci biti nga xam ne bu la scandale daloon mooy njëkk sa famille kooku sa famille la bokk parce que des fois mooy jiitu say mbokk ñu fi ne am ay problème duñ jeex nga tëdd say millions di paquete di teg yow yaakaar ne yow yow yow yow yaa ngi ci nekkoo ci alal ji mënaloo ko dara alal ji ciy dimbale ñi yàlla teg coono parce que yàlla moo la jox mission la rek la sunu borom jox daf la jox alal jox ña la ñu ñàkk mu yow mu jox alal yaa ëpp problème parce que mission la la jox pour nga dox ci ñuy ñàkk dimbale leen yow nga téye ko di sol say gram bu bien vrai que lekkal sa mais dimbale ci nit ñi dem seet ñi nga xam ne amuñu nga dimbale leen ñi nga xam ne tamit dañoo ñàkk benn affaire sax dafa am euh, ñi nga xam ne dañoo am lu tax ñu war a dimbale ñu ñàkk boo xoolee bu deewoon tey ñi ñàkk rek koy wër ci armeel di ko may fukki lixlaas ak benn borom alal li taluñu ko ñaaw xaalis dañuy woote ci fin bi ni ko eh, alors bon paix à son âme ah. ah, du ñu <laughs> dem borom ñi ñàkk ñi la waroon ñi yorul dara ñi la waroon mm. booy xool armeel yi demal ñi amul dara mm. maanaam ñi nga xamante ni seen xaalis demewul noonu mm. ñooy buuxante ci karapid yi ñooy buuxante ci njaganjaay yi ñooy def lépp pour dem ci armeel yi ñaanal la mm-hmm. gungee la ñaanal la genn wàll yi nga xamanteni dañu amone aral ay 3 4 4 ngay gis ci bir wala 4 est ce que dina ci am. na ci am des ci buntu armée la ñuy taxaw de. <laughs> booy lu leer la lay mm. ci buntu armée la ñuy taxaw. ñaari duñu sax dugg defa nan poussière be ak ñom sen kon dimbalé li nga xamanteni ni au moins. bo dé ñolay gungé may la fukk l'ikhlas ak benn dimbale wallahi dimbalé len ay jox len yow mi ñakatam amone ful la mm-hmm. xam bo waxee ñi am ni ñu wara dundé parce que ñi ñàkk tam dafa am comportement boo war a am pour ki ki am mën la respecté. mais doo ñàkk rek def sa bopp jaam. am na yoo xam da leen di jé jéppi ba doo leen dimbale. bul doyadal sa bopp mukk ci kanam ki yor xaalis bul tuuti tuutil sa bopp mukk ci kanam ku yor xaalis ala kulli àll dala koy jox wala mu bañ la ko jox nga am sa fierté mu jox la ko moo gën nga ñàkk sa fierté ba pare kenn joxu la ko même boo ñàkkee sa fierté ñu jox la ko jar ko. yaa ngi dégg parce que ki yor alal yàllaa ko dénk rek te sa wërsëg yàlla du waaj jox kenn dalay boole ay nit rek ki la war a jox bu la joxul suñu borom fokkati loxoom jox la ko rek ndax yàlla du wàcc waaye dalay boole di nit moo tax àdduna yor xaay da xam ne yàlla da leen boole doomu aadama yi defoo ko mhm. bés a ngi ñëw yàlla ne la ma la dénkoon mhm. ana loo ci def parce que gis nga voilà gis nga ki am voilà voilà gis nga ñi am mhm. defoon lu ñu yàlla dara dara dara li tax mu may leen da koo neex rek ñu ñàkk defuñu yàlla dara lu ko naqari ba tax mu jox lañu ñàkk mm. yàlla moom alalam mm. di ko séddale kenn participé wul woon ci alalam mm. mu koy séddalee ni mu ko neexee moom alal ji moom kon ku ñu jox war nga tiit képp alal moo war a gën a tiit. moo war a gën a tiit wallaahi. waaw parce boo demee ci armée eh, boo demee astafurlaa boo demee ci aéroport rek misaal la. misaal borom valise yu bari ñoo gën a yàgg ci aéroport bi borom benn valise moo gën a gaaw a dem. yomal xiyaam noonu la. lu tax boo demee aéroport da ngay gis borom valise yu bari. Uh-huh. da ngay ñëw douane yeeg ñëpp di calculer valise yi. di xool gis nga ni ñu fay yàggee. Mm-hmm. borom benn valise bi saa yu ñëwee rek moom dañuy koo ne rek xool saak mu dem fa yàgg borom alal noonu lay solee coro yow ma xiyam parce que dërëm bu ne ñu bëgg la laaj milliard ñu ah, dërëm bu ne ñu la bëgg topp fu mu jaar mm-hmm. moo def partagé alal ji moo gën yar fi alal ñu ne gaañu du dara ah. gis ñi nga xamante ne seen alal jaabuñ ci yàlla duñ ci dimbale ñëw ci doole yi ñoom seen alal pookare dem soirée baatale ko woo di def affaire gis tal wala ñi gën a mën a maye sax maanaam ñëpp toog génnee seen alal def yëfa gis te ne ah diw moo fa joxe temps si xaalis léegi am na ñi nga xam dañ doon def te yàlla tax di maye sa sutura te faa sutura léegi amatul léegi man tey may maye tey damay bëgg tey ñëpp gis ma ñu xam ne tey Fatou moo maye lii tey ma wanewu léegi yow li la yàlla dénkoon nga si jàppale jaamu yàlla yi jàppalewoo leen ñi nga war a teral teral loolu si te pourtant yàlla dalaa teral pour nga teral tamit ñi nga xamante ne seen loxo jot ñu seen ginnaaw parce que wërsëg boo gis nag yàlla am na fu mu koy jaarale tey sama wërsëg tey mën na nekk si Tafa wërsëg na loolu yëpp mu ngi ci léegi nag ñoom am nañ seen alal xooluñ ñu si war a dundee Tafa boo xoolee ba mu alal ñu si ëpp sax ñoo gën a yor feebar nañ waxante dëgg ñu si ëpp laa loxo ak nekkul ñëpp nag waaye ñu si ëpp tey ku si nekk yaa ngi am benn jàngoro bu ngay soo xaalee mu leen a dem ko tey alal bi moo lay faj tey kon wér nga nga gis tey benn baadoole ba nga xamante ne tey yorul ñaar dërëm waaye moo ngi sant yàlla mu tuuti mu néew lu muy dund du toog mu ko kenn parce que buy dee day deew ak ngorom tafaa mi si nañ delluwaat seen xel ñi am yi jàppale ñu ñàkk yi tafaa foofu laa lay bàyyi nga ñëwaat. waaw comme li nga ma wax naa ma ñi am des fois ñu bëri duñu dimbale balaa ñu lay dimbale ni ñu ñëw man loolu dama ci am lu ma da koy dund sax des fois parce que mm-hmm. émission la loo nekk fii di tudd ay tour mm-hmm. parce que ñëppay des fois am problème mm-hmm. mais dañ ko am problème sa mbokk ngay daw mais xam nga laa gën a compte ci àdduna dafa am yoo xam boo ko defee nga dem sa mbokk tiis ko sa problème wax ko yow moom ak yàlla même bu la doon jox xaalis bi dina ko jaaree la foo xam ne dèjà neexu la et bu ñu la koy jox dinañ woo nit ñi ñu toog wala teg la ci penc bëgg la jox xaalis yaa ngi dégg kooku humiliation la waxuma la ñi nga xamante ne dañuy dem ci soirée sax même am na lay may ci biir famille da nga koy ñaan sa som mu nga doon frère am nga doon benn sœur am wala benn am di jàmmam mu mën a jël xaalis bi envoyé la code nga récupéré ko mu jël xaalis yóbbu ko seen famille seen waa famille toog wala ñuy waxtaanee diw may na nangam. Mm-hmm. amul sens. amul sens ñu koy def sax dafa bëri. Mm-hmm. ñoo ñuy dem ci soirée man ñoom laa yemale. xam na ñoo xam ne dañuy dem ci soirée ñu leen di way ñuy battre moom ñuy toog ñu nga ñaan xaalis wala nga ñaan ko benn problème wala sa problème famille. parce que góor du ñaan moroomu góoram sax des fois naan ko dama ñank giil wala dama bëgg may duñ ko sax wax mais dafa da ngay am problème xamanteni mëno ko régler mëno ko régler nga gis sa ben frère bo xam yalla may nako lum la mayul wala sa ben tonf wala nangam nga wax ko mm-hmm. da ngay japp ni ki ma koy wax sax dama ko wara wax mo dama wax mm-hmm. def parce que bu la neexon dem rang ci kër borom dem diko rek mais nga ne dem sama frère frère moo ko sutura sa frère bobu élève mu may la te yalla rek tax wala mu jox la kenn du ko penc lañ koy def soit que mu jox ko yaayam ay mbokk la soit que mu jox ko yaayam wala ñu woo ay sëram ñu day wala xaalis avant nga ciy jot ñu koy waxtaanee kooku est-ce que am na sutura neneen jullit te xoolal ay ñiy woote naan jullit lañ ñoo koy def mais mhm. neneen jullit mën na may moroomu jullitam xaalis te loxo bii du ko yëg nga maa ngi déglu torop doomu euh, sëñ Bay Si Mansour mhm. nee na nit feek mayoo nit mhm. yónnee woo nit ceeb ak diwlin mu togg te xamul ne yaa ko yónnee ba di la yekkal goo ci mbaax nga may nit yëre mu sol ko day yow jumaa nga naan ko sa yére bi rafet na may ma ko mu naan la kii yii mun ma la ko may ndax ku baax moo ma ko may mm-hmm. nee na goo ci mbaax waaye léegi balaa ngaa may nit ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko kooku man xam nga dem ci soirée man ñooñu comme ni may wax des fois gars yi dof yi rek laay wax man bay boo ñu naan ay mooy loolu <laughs> parce que dem ci soirée ah. yow gàddu sa xaalis ñu lay way ngay baatre sa koñ boo taxee ci bopp koñ mais xam nga kër yoo xam ne des fois ñu togg añ des fois duñu togg añ mm-hmm. nga xam ño xamantene ne dañuy am problème ordonnance yow xam nga kon bo juddoo tay ah, fa dafa ñun suñu koñ tay suñu la joxon xaalis ni la dimbale lu ñak yow xam nga kër yi dugg xam na kër yi may dugg waaw déjà kon nak bo juddoo ci koñ rek xam nga lepp mais bo génné beneen koñ difa euh, wala nga dem soirée ñu lay wane télé xanaa doo rus wa sa wa koñ bi lay seetaan loolu ñuy wax samba té ngay battre ko xamné way bi muy way tuddu ñu ci benn yoon sa mam mm-hmm. parce que ngay gis waal di fa way yàlla ma yàlla ba naan demba xañarul xarañ doo paata xarañ do ku sant dafa joggé fé nan di battre <laughs> wayuñu la wayuñu sa maam. wayuñu sa maam. ah ngay baatare te ki ngay baatare moo lëpp xaay chaque jour mu wan la ci télé oto boo xamante ni yow sa famille commencé ko sa xeetu maam ba sax seen caat kenn amu ci oto bu mel noonu. Mm-hmm. ne danga koy baatare. waaye Tapha gis ñu tamit euh, alal bu ñu jël di ko baatare si ay détails yu ñàkk fare da nga yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko benn diina bëgg ko. gis ñu tamit alal bu ñuy jël di ko baatare di ko puukare tey am na hôpital ñu tëdd lal hôpital Tapha. jëluñu sax ñu jëndee seen ordonnance am na ñi nga xamante ne ñoo ngi feebar te amuñu sax lu ñu fajoo di toog si télé yi di ñaan am na ñi nga xamante ne sax seen ngor sax may doon ñu génn télé sax di tàllal loxo te ñoo ngi métit te ñoo ngi si diggante dee ak dund dafa életan nag ñiy jël seen xaalis di ko yàq si ay di ko baatare te kan kay baatare moo ngi yor këram bu rafet moo yor otom bu tooy te pourtant te teel lalu hôpital bi moo gën métit mu ngi si diggante dund ak dee te pourtant li ko war a yëkkati lu ndaw la te yow mun nga ko jàppale waaye nag alalu àdduna bu tax mukk nga fàtte ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd si lalu hôpital yi alalu àdduna bu mu tax mukk nga fàtte ñi nga xamante ne bu añee du reer wala du reeree du ndékki nañ leen delluwaat seen xel ci yàlla ñu bàyyi seen xel ñuy foowee bala yàlla dénkee xel bu rafet xel bu baax bu ko potikaawee toll ñu ci jamonoy potikaan dañoo toll ci jàmm yàlla dañoo toll jàmm def lu baax parce que nag àdduna dafa li may faral di wax rek lépp la nga xamante ne dañ ko war a liggéey si sa àllaaxira fii nga koy liggéeyee si ko suuf sa fii bu baaxee rek jàppal na fee dina baax waaye sa fii bu baaxul bu am yaakaar mukk ne fee fee dina baax parce que dañuy wax ne yàlla am na yërmande dëgg la yërmande yàlla foo ko nattu rek weesu na ko waaye nag jëf lu baax wax lu baax dañuy jël suñu alal jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yendoo ñoom ñoo ko war a jël faju ci wér dafa foofu tamit dama siy bàyyi rek nga xuusaat bu baax. waaw comme ni nga naan yërmande yàlla yàlla yërmande kese la nga yàlla kon dee nañ ba jeex. yërmande yàlla xam fan nga koy gëmee. Mm-hmm. natt ko sa bopp. Mm-hmm. dangay ngay xëy nekk ci ay tooxi ndoone yu garaaw yoo xamante ne yàlla rek ko yëg. mu leer ne la bu jógoon ci kaw. Mm-hmm. police jël si na la. <laughs> am na xam ne bu jógoon ci kaw. sa jabar na la. man ne bu jógoon ci kaw. waa koñ bi mbàmm nañ la. yàlla rek di ko yëg. baalaa ngay nooy di féex di añ di reer teg si ataaya di xàqataay. <laughs> di enjoy wala foofu rek sa nat bopp rek boo ci nattee ah. yërmande yàlla rek nga xam ne yàlla yërmande kase la yërmande yàlla googu moo ñu fi bàyyi. Mm-hmm. te gis nga nit ñi dañuy jaawale gañ jël ak gañ foo du benn. yi mm-hmm. nga defal yàlla. Mm-hmm. mooy gañ jël. loo ko defal jot ko. jot ko barke Seex gañ foo doo ci am dara. mooy yor sa alal di foo wala di ci di ci jaay sa famille dama yor di tabax kër yu bëre say mbokk nekk ci kër yoo xam ne te bës mën na daanu seen kaw yow nga yor ay kër yu bëre nga ne yow defaral nga yàlla defaloo yàlla yàlla boo koy defal da koy defal jaam yàlla du moom ngay may yàlla da ngay def ci compte sa compte rek nga ñëw mu génnee la ko defal la ci lu baax. Mhm. alal pour loola gis nga man euh, Fatou Daffé ma wax la benn affaire man su ma toogee tey ma ne man su ma yoroon ay milliards damay dimbalee képp ku ñàkk. man su ma ko yóoxoo sama koñ kenn du ko wedd dama lay jox exemple du ma sax ay tur parce que démb laa ci jógee. Mhm. malade bi gaañu tout récemment. Oh. problème yëpp chaque jour man lañ koy wax. man man su ma amee joxe su ma amul dem samay booy su ma demee bu sama booy gis ne dëgër la rusuma gàddu leket dugg ci marché yi marché yëpp xam nañu damay dugg ci marché di majjaalal malaat barki la ba ma ko dalé def légui boko dilé sama at li may dese du bare mhm. ndax tanewuma leen mhm. damay am ay problème mhm. sama biir galé yu réglewul am malat sama galé mais mëno ko défal sa bop mais damay jog malat solis ay ñoo xamantani ndaysan yalla na len yalla xara àjjana sen ay dom sax ñu ci dëkk bi di dox té défal na sen papa social bu amul fenn su su ma leen dara ñu wax ma fukk te ñoo xam doo ko waxtaan parce que yalla mo taxaw ngay def koku tay suma ma xaalis coono boobu du ma ko daj. teew toujours malaat booy ketal am na ku ko jege ku yor lu dul jeex te di malawu. barke alxuraan. parce que famille nag ñëpp boo dee moo sa indi fa nag indi fa indi fa lu nekk. lu nekk cest à man tey xaw ma kañ la xaw ma nan la. lii may waxtaanee. Mm-hmm. tey jàll àdduna bi képp ku ko dégg. Mm-hmm. yónnee naa la ko. bis bu ma dee man. Mm-hmm. képp koo xam ne musuma taxaw te yàlla yéex man gis nga dee. gaa dañoo ragal rek. soo waxee dee rek ma yàlla yéex <laughs> yàlla yéex yàlla yàlla dafa dund bis bi ngay dee uh-huh. bindu biis bi ngay dund ah naa laaj boroom xam-xam yi ndax ñaan mu gën a yokk avancé moom am na mm-hmm. xaw ma ko waaye su dee am na su ma julee dinaa ñaan dat bi ma war a dee yàlla gën a avancé yàlla naa gudd fan parce que bugguma dee léegi mm-hmm. mais dama ne bu ma dee woon mm-hmm. soxlawuma man képp koo xam ne gisuma la woon sama kanam daan ma dimbale dimbale sama famille soxlawuma sa jaxal soxlawuma sa xaalis boo ko dugalee sama euh, dëj yàlla bu ma la bugguma sa dara man lu ma waaye di defal instant yi may dund laa ko soxla sama famille si lañ koy soxla su ma deewee ku ma dugalal sa xaalis yàlla bu ma la jiitu parce que il faut nit ñi di ñeme di ko wax. waaw da gis malaat bu sonn booy bëgg a dee am ay problème yu nekk mooy dama ci fekkee yu bare. dafa internet bi sax dañuy xaar bu mu tëdd hôpital des fois sax. am na ñoo xam ne ñoom sax duñu xaar dee dañu xaar ba nga tëdd hôpital mënatoo dara ñu xam ne feebar bi siiw na ñu doog yónnee benn somme ni maa ko dimbale te am kii dimbal xol bu am na ñoo xam ne xol bu metti moo leen dugal moo leen moo moo leen yóbbu hôpital wala moo leen jox feebar est-ce que xam ne naqar day joxe cancer cancer ak lépp nga gis sa mbokk mu yor ay millions yor kër yu bëri ngeen tëdd ci kër mu leen tëdd tëdd bu baax bu ngeen añee du ngeen reer ngay naqar lool nga gis sa benn frère wala sa benn tons wala benn boo xam ne lii may wax pour ñëpp la. nga koy xool de kii mën nañu dimbale ci benn tàkkusaan dimbale des fois ngay toog di ko naqarlu mën na la jox cancer barki alxuraanu karim feebar yu bëri naqar a ko joxe. Mm-hmm. parce que tey da ngay gis koo xamante ne dëgg la yàlla mais yàlla bu ñu jël lépp jiiñ ko yàlla. Mm-hmm. billaay bu ñu jigéen jëpp lépp jiñ ko yàlla. il faut gars yi ñun la ñun la. su ñun la parce ñun ñoo njëkk soxor. xam nga dimbal dimbal dafa bëri gis nga tey bu ñuy wax ci débat boo xoolee xol laa koy waxee. xam naa xol. parce que ba nga yeewal xol laa koy waxee. Mhm. parce que ñi koy dund ñoo bëri. te balaa maa dee yaa ngi dégg nga seetaan nit ki ba mu dee nga ñëw fa di jàkkaar jaay sol sa gramme bu gaare sa kat mhm. kat di jax la ay 500000 100000 di ja man non mais te bu muy dund feebar yow joxoo woon loolu day jeexal sama xol. barke Seydina Muhammad day jeexal sama xol dama ci fekkee lu bare jël ci ay social yu bare man man gis nga man damay ba maire Grand Yoff mm-hmm. man dañ naan maire maire fi mas a man ñun mën nañ ne sax ñun man maay sunu maire koñ su ma neexee waxam du man kase man ak boo nekk sama ginnaaw mm-hmm. bu làmp fayee ñun ñooy cotiser mm-hmm. dem taal làmb yi. waaw loolu moom yaa ngi su ay problème agression sonal leen ñun ñooy def suñu pexe am na ñoo xam ne sax dañoo génnee suñuy jaasi di xeexal ñoom bu ñu jógee. da nga doole boobu. yaa ngi dégg soo amee maire bu feebar yi yaa koy dem kettal yaay def lépp munoo am benn accès ci maire ci maire yi wala fere yi. Mm-hmm. mais tam tooguma di xaar kenn. Mm-hmm. da ngay ñëw parce que nit malade du xaar. buy xaar mën na ñàkk. Mm-hmm. moo tax il faut gars yi yor xaay ñu dellu seen xel ci yàlla gi nga émission télé yi ñuy war a waxtaanee di waxtaanee jël seen liste. ay diw di gërëmaate gërëmaate rien que pour am xaay la gis nga émission da toog ci télé bi ni yéen borom xaay ji di puukare yor seen. waaraatekat yi da koy def te waaraatekat yi weeru koor la leen di jox opportunité pour ñu koy wax. dëggantaan te waaraatekat yëpp genn wàll yëpp jënd nañ leen. Mhm. jox lañ leen ay jas ne puudar leen ba ñuy taggaate. <laughs> te kenn waxatul dëgg. waaw ñoom ñëpp léegi noonu waaw xamante ne neex na yàlla waaye ñuy xool la nga xamante ne neex na askan bi nit ka ne na doomu aadama da ngay jaar si digg bi wax ak doomu aadama mun laa dégg parce que tey dafa boo xoolee tey am na ñoo milliardaire seen kër boo demee lu ne moo ngi fa pourtant ku nekk kala ku nga xamante ne dafa takkaloo ak yow kër billaay lu muy dund sax mënu la kaa wax yee saa yi teg ci kese socc si ndox mu koy xeeñ mu koy billaay mu koy xeeñ mu leen na yow la ngay dibi wala la ngay làq sax ndeysaan xelam mu ngi ci te mënu kaa mos metti na torop ñu ami set lañ ci yalla ngeen xol xol ak seen diggante ak seen borom parce que damay fa di wax tafaar judd do indala dara ni ngay ñëwé noonu ngay dématé ala loko am am am lu mu bari bari bari bari yàgg ba doole bi yéen yem muy même càngaay yena yem tam ci même kees ñu ni duggal dugal yem ci juma bu leen di julee yéen yem ci même kan kamb ben malaka bi moo leen di jéssi kon ñeen ñi nga xamantene am am ngeen yalla dénk ne leen gestu lañ ñi nga xamante ne ay néew doole lañu néew doole yi sonn nañu am na ñi nga xamante ne seen ngor rek dañuy demee am na ñi nga xamante ne benn yére lañuy am man taxaar may xam kan mooy noobul baa doole mooy noobul dëgg parce que baa doole mooy am ñaari di ko awante gis nañu am yi di yor amuwaa yére ñoom amuñu waaye baa doole yi ñoom ñoo am ñoom ñooy noobul parce que dañuy dañuy dund du gore ñii di di gore ñii di ànd ak seen ngor te kenn du lañ ko xamal kon nag ñoom ñooy jàmbaar ñun dañoo sonn tafaa si dëkk bi chaque jour bu ñu jàkkaarte wala internet nit yaa ngi génn di ñaan sama mbokk dafa feebar fu muy mujjee dañuy mujjee génn àdduna ñu si ëpp nag dañuy mujjee génn àdduna léegi yow ka nga xamante ne tey yor na otom biram boo fa demee mu ngi ko ay ndoxam yow boo ñëwee bu ko gis sax day nekk problème pour nga ñëw sax pour mu dimbale la sax tafa problème lay doon ñun ban jamono lañ nekk xol yi ñoo wow wala xol yi lañ tabax léegi ak ciment wala lañ tafaa yërmande moo amatu tafaa nañ leen xoolaat jikko yi. mais yërmande am na. am na ñoo xamante ne am nañ àll man lu ma gis rek laay wax lu ma gis duma ko wax parce que man du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko. dëggantaan kenn feesu sama bët. Mhm. man social dama ci am ñaari nit yoo xamante ne dañ ma ci marqué su ma demoon ba tëdd tëdd dee wala ma jàkkaaroo yàlla sunu borom. Mhm. dama naan yàlla ñaar ñii moom te xam naa ne yàllaa ma gën a xam lépp. Mhm. ku mel ni Moussa Ba. Adama dama ndeysaan damaa fekkee. kenn nekk loo ma ñoo lay jox loxo bi te bii du ko yëg. ndeysaan mën ngeen ànd ñaar nit kenn nekk ci bunt bi mujj bu la joxoon tey xaalis bu ne gaañ ki nga àndal du ko yëg. Adama Faye day def social def social ba day mujjul du yor di laqatu. ndeysaan këram. yaa ngi ma teg sama bët bu borom alal yëpp meloon ni moom beneen bi di Moussa Ba Moussa Ba dañ ko doon rang këram mu am ay këram toog fii di dimbale waa Grand ku ne fii jox na la liggéey ku ne defal na la teranga. yaa ngi dégg yàlla taxaw bu baax. ñooñu da leen di ñaanal. Mm-hmm. parce que tey ku mel ni Moussa Ba ku mel ni Adama fay bu gaa yu bëre amoon xaalis mel ni mel ni ñoom. Mm-hmm. tey xoolal ñu bëre nañ fii. xam nga nga am xaay di jox nit mu dem liggéeyi. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. di di euh, jox ko sànce mu dem joobi. Mm-hmm. di mu feebar nga dimbale ko. foofa dawee yóbbu ordonnance mu ne am demal jëndal ko. wala mu yóbbu ko diw woo médecin bi maa ko jël en charge. kooku kooku nit am na fayam. kenn amul fayam. su fekkee xam nga tey nga nekk un politicien ah tey balaa moo ñëw ci yow rek day am soxla. yaa ngi dégg loolu baaxul. seen xaalis balaa moo tuuru rek yenn politiciens yi xaalis ñi. xaalis ñi ñoo am élection. dafa bu jàllale pour nga wóole bu jàllale sa problème la. yaa ngi dégg yooyu baaxul mais koo xam da nga xam këram di dem këram tout le temps di ñëw yi nga alal noonu lañ koy dundee parce que moom xam na xam na ni suba ni mu ñëwee woon noonu lay delloowaatee. Mm-hmm. xam na ni suba dina génn àdduna yàlla na yéex ñu muur ko juróom-ñaari perkaal yóbbu ko xam na ko xam xamaat ko xam ne alal jii ma yor fii laa koy bàyyi su ma ci defal lu baax su ma demee sama borom xamul suñu borom xamul ministre xamul député xamul président xamul sëriñ xamul kenn xam nga lan la xam xam nga lan la xam ku nekk ci yoon moo ko teg mhm. la xam boo ñëwul mu rëq sa ndigg parce que gis nga alal mhm. jëriñul dara pour dimbale nit mhm. faj ci say soxla dimbale ciy mbokk amul beneen njëriñ bu dul boobu mais da ngay gis koo xamante ne borom alal borom ndéngaloo wooye na ko borom doole yaa ngi dimbalante ñun néew fu ñu jëm borom alal di may borom alal loolu mooy iñaan fa la weesu. waaw wala yow nga ñëw baatare koo xamante ni li nga koy jox da koy dem da gis mu génnaat di ko dimmale nit ñi. Mhm. yow li muy def mënoo ko defal sa bopp xanaa bëggoo tiyaaba nga jël maletu xaay jox sëñ bi sëñ bi gestu jox ko nit ni ko séddaleel taalibe yi. Mhm. wala séddaleel ñu am. Mhm. yow loolu ngay sonal sëriñ bi di ko sonal. doo ko dem defal loolu benn yoon. nga am ci tiyaaba. mais nañ bàyyi tamit di maye. man même je contre ñu invité benn taalibe Cheikh wala ñu mu nekk ci tele bi di woy ñu ne diw may na ko tant de millions wala woo ko jaaral sama kër nga jël ci nangam mais puukare la. puukare la boo daanoo leer ci sa sëriñ. Mhm. da koy def ni sa sëriñ bëggee. Mhm. boo daanoo leer ci sa sëriñ parce que sëriñ bee tax nga daanu leer. Mhm. sëriñ bi du wax ci kaw du jébaane. du maye ñu koy yëg. lu muy def lu muy def ci benn loxo euh, euh, droite bi loxo càmmoñ bi du ko yëg. kon nag bu dee sëriñ bee tax nga daanu bay maye oto wala ay million bàyyil ba mu pare wool ci réseau bi ne leen jox leen ma numéro jox leen numéro mu pare nga ne ko jaaral sama kër mu jaar sa kër nga maye ko li koy may suba nag moom bu ko waxee ñu yëg ko mais télé bi ngay woote direct man la diw jaaral sama kër am am nga fa 4 4 mm-hmm. man jaaral sama kër am nga fa ma may la may naa la 1 million may naa la 2 millions yaa ngi koy wax kenn ku tëdd sa wetu kër. bëggoon la gis am problème vingt cinq mille. bu dee jour boobu yaa ko rey. problème cinq mille sax nit da koy am. mën na billaay bu dee jour boobu yow yaa ko rey parce que xam day taxaw buntu kër tout le temps bëgg la gis mu tëggoo. yor benn ordonnance vingt cinq mille. déglu li ma la wax bu baax. dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi rey nit te yëguñu ko. Mhm. muy jaabante sa kër tout le temps di jaabante pour nga jëndal ko ordonnance vingt cinq mille am. Mhm. yaa saa yu ñëwee gardien bi dàq ko ñëwagul ñuy def noonu muy naxante naxante di dem benn jour mu toog di seetaan télé di feexal xolam dégg fa yow mii topp woote nga ni may naa 10 millions. moom moo am problème 25 millions. lu ba mu gis ko mu amoon feebaru xol mu naqar la ko ba dee. ba rey nga ni te yëgoo ko. il faut gars yi di sóoraale. Mm-hmm. il faut gars yi di sóoraale. Mm-hmm. gars yi ñàkk ñu jom dañoo amut. dañoo nga nit ko amul ba nga xam ne ëppoo ko fulla ëppoo ko fayda. Mm-hmm. mu yoroon di nga yor si la lay wan ne moo la fulla moo la fayda. mais gars yi dañoo jël ñàkk. Uh-huh. ñàkk def ko feebar ñàkk du feebar. du feebar. il faut nit ñi di dimbalante. mais balaa ngay dimbale nit woote ca penc ma woote télé woote nangam yooyu du baaxul yàlla ba mu lay jox yëgale wu ko fenn annoncé wu ko fenn amul fu yàlla annoncé maa ngi may diw te bu ko neexoon def ko moom xaalisam. dafa dogguma la foofu amoon na benn paa ndeysaan yal na ko yàlla yor dégg naa sax na wàññeeku na moom da doon def ne paa borom xaalis la woon day xëy jël enveloppe def ci xaalis vingt cinq mille cinquante mille moo xam ne da doon tas xaalis bi bu ñëwoon ba buntu principal moom day foofu lay toog. heure maladie man heure université si maladie heure boobu lay dugg ndeysaan lal bu nekk mu tegal la fa xaalis te ay sagar lay sol kooku xam alal la mu ngi si jaamu yàlla kenn xam ko bu ñu demee nag ba gars yi commencé du nand si la génn àdduna kon kooku alalam mu ngi siy sóoraal mu ngi def lu baax mu ngi jàppaat nga xamante ni ñoo ngi tëdd hôpital ku si mel ni tamit euh, Modou Gueye séeri Marie Defe maa ngi koy nuyu bu baax kooku da ngay woo Marie Defe sax laa la wax de des fois alors doo xam moom jëkkër ji ne ko lan la soxla ban problème la am moo lay wax mu ne ba problème nga am mu ne waxuma coupé maa ngi koy orange mu ne wala maa ngi koy wéef fois Guèye Modou def na ko kon Modou Guèye maa ngi lay ñaanal sa fan yàlla na gudd yàlla na la yàlla bàyyi ak say njaboot parce que nag jàppale nga ku nekk bëggoo kenn jàmmat yow sa alal ñépp ko moom Modou Guèye sa alal dañ koy partagé ñépp moo Modou sax yi dangay am kese sax di woomaale am loo koy expliqué te da def te kenn du xam lu mu lay jox nag jabar ji sax xam Modou Guèye loolu man loolu def na ko defati ko man nii damay woomaale di wax ak moom tafaa mu ne Fatou ban problème la am mu ne mu ne ko wax ma coupé ma coupé damay jékki-jékki gis message du wax Marie yónnee naa sa rakk temps kon nag Moodu ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax sa jàmm yàlla na yàgg yàgg nga def lu baax ngay Moodu yàgg nga teral nit wax dëgg yàlla te kenn du xam sa jabar sax du xam kon loolu la ñuy wax du dëgg waaye kenn yow yow murit xaadir nga Moodu kay waaye Tafa yéy saay ma gis kaay doy waar man Tafa gis naa ko am problème ordonnance 2000 francs mun na ko jël moo koy wax sa sama xol ma sax sori deux minutes teg ko pour mu jënd garab tasaar parce que gis na tey émission bi tey dafa laaj sama xol parce que dama am na nga xamante ne jot naa ko dund ak ñu am ñi ak ñu ñàkk yi parce que xeebaate fay gaaw ñu ñàkk loolu dafay fay gaaw nit day feebar am problème mu deux mille pour jënd ordonnance amoo ko parce que nag ku amul fukki dërëm nu mu jënde café kooku am na deux mille bu mu jëndee ordonnance te damay faral di wax ne famille tamit foo ñuy jàppalante parce que euh, yàlla jëlul famille rek ñëpp di ñàkk déedéet famille du mu métti métti da gis ki nga xamante ne kenn sax wala ñaata wala ñett boo ko compté nit na si réussir dina ci am yéen saa gis famille yi nga xamante ne dëgg la ñi dañuy am ñii duñu am waaye famille ba nga xamante ne ñii dañoo am duñ nangoo la jàppale rawatina sax ñi nga xamante ne dañoo bokk parce que dañu nañ dem liggéey liggéey bu mu jotee man damaa liggéey ba am bul xool loolu parce que yow yàlla dalaa teral waaye teral la ka nga xamante ne yàlla mayu ko damay ne li baaraan yi sutantee doomu aadama yi noonu lañ sutantee am am yi noonu lañ sutantee ku doon bind sa bopp barke Seex Sabbu kon da ngay bind yaa fiy gën ku doon maye yow yaa fi gën a doon milliardaire waaye yàlla mooy xool la ko neex si jaamam yàlla mooy xool la ko saf si jaamam mu ne man lii laa koy may waaye bu la mayee rek à chaque fois jaamu ci yàlla bu baax jàppal ñi ca war a jàppale. dafa suñ koñ bi ñàkk ñu ñi nga xamante ne ñëpp euh, maanaam ñu ñu ñu am am na ñu am waaye nañuy gëstu nañuy gëstu néew te doole yi tafaar man gis naa ko nga xamante ne 2008 la feebar. nit ba tey ba nii mënuñu fexe bu opéré ko Tapha hmm. bëgguma sax sori ba nga duggee sa buntu àdduna nga daal di feebar day soox Tapha maanaam pour ñu opéré tànk yi setewoo sax amul moyen bi dox def naa si ay jéego lu nekk waaye Tapha ñu am yi jàppalewuñ ko te xale la xamul bànneexu àdduna kooku dañ dañ ko doon jàppale ak lu mu mun a doon li may wax nii xam naa ko bu baax kenn jàppalewu ko dafa obligé dem toog mënul sëy parce que am na problème mu loxo am na problème mu tànk pourquoi pas du ñu gëstu ñi nga xamante dañoo nekk suñu ginnaaw ñu jaamu si yàlla bu baax a baax dee ba léegi amul xale amul mag mag day dee xale day dee ñëppay dee waaye dañuy defaat toogaay yi bu baax a baax ñuy fàttaliku li nga xamante ne sonn nañu dafa ko si nekk sa alal boo doon jël di wër si hôpital di jàppale ñu feebar yi dañ si am ngir ngërëmu yàlla dañ si am tiyaaba yaa ngi liggéey sa àdduna la nga xamante jour boo dee da ko fekk sa biir bàmmeel tafaar waaw li nga waxoon dëgg la. dëgg gu kéng la parce que man li nga wax sax sama yaram mi ngi daw. Mm-hmm. bëgguma si yàlla dafa dem ne. Mm-hmm. exemple dama ci dund ak maladie bëri toog ñu ci bëree bëri bare bëri. Mm-hmm. am ñu lay wax ay soxla bañ nañ ko ba ndeysaan cas social bëgg dimbale cas social man sama cas noonu la demee je ne suis pas complexe. aw ma lu ne gàññi mais chaque jour ñi feebar ci man la ñuy ñëw. xam lu tax ñu ñëw ci man. xam nañ ne aw ma ko de ñoom. mais xam nañ man jaral naa leen dem jéego. ba am ko moo tax nga koñ bi comme li wax koñ ba. sama koñ aw ma seen fay. mosuñu ma seetaan ci malade lu ma lu ma indi ànd seen ñaari booy dem di nga gis gaa yi génn. ku ne lu mu am dugal ko ci. su ma nee booy dama bëgg ngeen gunge ma marché ñi dem dem fii da ngay gis ñu def ko. moo tax mention spéciale am na ñoo te ñooñu yoruñu lu ne ku ci yoroon lu ne gaañu da nga koy def. gaa yu bare lañ su ma doon seen tour fii émission bi day jeex. samay lim mais dama lay wax benn gis nga gaa yooyu ngay dégg nga naan dañoo feebar tey bu ñu demoon léegi ñu publier ko ci tele bi. da ngay gis xaalis ni muy dàqee. xoolal loolu. balaa ñoo dimbalee nit rek. nit génn sonn na te xam a gor moomul tey. Mm-hmm. toog ci tere ñaa ñuy wane feebaram. mais dafay yegg foo xamante ni. Mm-hmm. xam na ni bu ko deful doo am. Mm-hmm. ndax ñiy dimbale ñëpp il faut ñu médiatiser ko. alors man la diw naa ko dugalal temps alors man la diw naa ko dugalal temps man xamal na gars yi di jaawale comme ni ma doon wax sànq rek fi nga defal yàlla. mooy gañ jël. dem baatare ji wala di def euh, di ko yëgale gañ foola doo ci am dara. nañ jël gañ jël bi bàyyi gañ foo bi parce que dañu war a xam ne ñun ñëpp dañuy daje ji dañuy daje ji dañuy daje jeeg yàlla ku ne yàlla dina la laaj la ma la joxoon nan nga ci def da léegi jigéen ñoo xam dañuy am problème man booboo ma gën a métti nga xam ne tey jàmbur boo xamante ne yorul xaalis jàmbur bu yor xaalis du yow xamul la nga ñëw di ko ñaan am na ñoo xam ne sax des fois pour ñu dimbale la il faut ñuy gestu affaire tubaab yooyu kooku sax tey boo amul ci moom ndax xamuloo mën naa day dóor ak day nangam ak nangam mais yow imagine sa mbokk yow sa mbokk bu la jege am ko mën ko war la mën a dimbali di la seetaan mais loolu kooku est-ce nit la boobu moo lay metti tey ba rey la wala nit ñëw ah? wala daf fiy jeex dégguloo maa la képp koo gis mu feebar mm. sonn mm. nga ñëw di ko laaj ba nit ñi di ko ketal nga ñëw journal di ko laaj yow xanaa amooy mbokk dina la limal lu mat sept wala six mbokkam yoo xam ne ay millionnaire la ne bu nekkul sax millionnaire sax waaye am na nga xamante ne yàlla dégg dañ leen di xeeb sax ba du seen kër dañ leen di xeeb ba du ñëw te gëneewuñ la dara. déggoo li ma la kuy ñëw dungu nga ñëwee. booy dellu dungu ngay delloo. nañ xam loolu. léegi nit euh, surtout gaa xam ne jigéen day ñëw si ñoom am problème am. ñëw di la ko wax nga naan ko. nga koy laaj boppam baale ma ci terme di ba pare naa naa la waaye yow looy doyee 5000 ma jox la 10 000 rek. la mm-hmm. ma roq daal <laughs> su ma ko naree def nit yàlla na ma yàlla rey ca jour boobu. am na fii. Tafa lu ñëw am problème nga koy laaj boobu. Tafa du fi jeex dogguma la foofu. gis nga loolu nga wax dama koy firndeel nit ñëw na seet si nit wallaahi wal azim mu ñëw ne ko damaa bëgg te dëgg yow mosuma mooy waaye yow yaay tax may mooy déggoo ma de yow yaa tax may mooy waat ci alxuraan. ne ma da ngay tëdd ak ma jox la 300000 kooku ne ko bu may dee damay dee ak sama ngor waaye du ma tëdd ak yow mu double waat xaalis bi kooku xaalis boobu mu double mënu woon xool kenn su mbokkam wallaahi laa la wax de mu double xaalis bi mu naxanteeg moom xale bu jigéen bu bañ na di tëdd ak moom maanaam bu la taxee naan buróobu na ubbee da nga rus defe naa na lu olof du ko waxee te waa jooju mu ngi fi yor oto yor fa ay këram waaye da ko double rokki moo rokki xale bu jigéen bu bañ mun na ko say moroom ñu ngi fi 10 rek nga demoon ñoom OVS yow ma doublé xaalis bi 300000 ñetti yoon nga ne doo def man. léegi yow loolu mu doublé mu wóor xool ci ay mboqam ñi ñàkk boo mu dem dëkk bu mu cosaanoo am na ñu ko mën a jàppale tafaat. ñu ñu bëri sax mun na ko tas loolu ngay tas di ko jox doomu aadama yi wala nga xool ku sonn nga dimbale ko sa alal mu ñaanal la rek yàlla day daal di nangu ñaan parce que xamoo fa nga ko fekk ak fa ko jëlee. nit da nga moom si yoonu maasa mu ne damaa gàddu si waaye sama doom aw ma lu ma togg. du fi jeex jeex. te borom oto yaa ngi fi yàlla boo ànd ak nit nag wala mu si gën a métti nag ngeen baal ma si kàddu bi dangay ànd ak nit mu am lu koy jàppale. nga nekk ak moom mu dem ba lu mu bëggoon maanaam côté boobu passé na ko nga koy woote toxu jël téléphone. ko koy message du la wuy boo amee dëj sax du la jàlle léegi avec ça bu la soxlaa mu ñëwaat ko say tànk du la sëkkal du la raamal. man ku ma ko def damay damay doog mais fii dama lay jox lay jox doguma la sax da ngay xool benn affaire. gars dafa mel ni léegi. Mhm. ñàkk feebar bu bon la. Mhm. boo xamante ne day wàlle. Mhm. ñàkk Sénégal léegi ñàkk moo fi raw coronavirus <laughs> barki alxuraanul karim jal xool ñàkk. jeeñ ah. la xeeb. doo bëree ñi lay seet si. dëgg la. maanaam yow bokkoo ci dara da gis say mbokk ñi nga xam ne ñoo leen tane. dañuy am yeneen xarit yu am xaalis. Mhm. defanteeg ñoom ay teraanga. ñu leen daan leen yow la ñuy def yaay premier njëkkee. Mhm. nga dem fa wala deuxième njëkkee wala eh, tuddee la dara. Mhm. nga fay yàq da ngay nga fay yàq xaaj bëre. des fois dañ lay invité nga toog ñu koy def. ñu koy def tuddee la doom sax. yow miy ñëwal leen yow miy ñëwal leen. barke alxuraan yéen nga bàyyi yow ko ñëwal yaa ngi bàyyi seen kër facture ndox 30 000 bu ñu fayul ba ñu coupé la ndox yaa ngi am problème courant bu ñu coupé la ko sa mbokk bu la jegee invité la di yàq ay millions nga toog ni jàkkaarloo moom nit ñee ngi rey nit ñi te duñ ko xam. di jaay puukar di ko defal yeneen nawle. yaa ngi dégg dem di dem seet sa yeneen nawle di seq ak ñoom teraanga parce que ñoon ñoo am kii laa xam ne su ma ko defalee dina am euh, dinaa ci am lu ma am suba bu ma jekkoo ñi la may defal. yaa ngi dégg te am sa mbokk yi la jege nga ne te yow bu ci waxtu julli jotee nga ne fëgg sijaada bi lal. ni allahu akbar <laughs> mais am nañ julli dafa commencé ci xol. ci xol gis nga nit. Mhm. adduna bii boo fi ñëwee da fiy fexe yàlla teral la déggoo li ma la wax ki am alal defalul yàlla dara lu mu ko teralee du sama yaaya liggéey sax loolu wax am nañu seen yaaya liggéey te amuñu yaa ngi dégg defalul yàlla dara bu ko neexoon sa yaay liggéey ba tas yàlla def sa doom yëpp du am yàlla lu ko neex lay def mm-hmm. parce que ku fi sa ndey liggéey dafa gën a liggéey ndeyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku fi am doom ju baax dafa gën doomu yeneen dafa gën yenent bi mooy suñu royuwaay moo ñu gën gën suñuy ndey gën suñu baay dañ koy nangu kenn du ko werante mm-hmm. te yonent bi da doon xiif ba takk biiram. da doon xiif ba takk biiram pour mën a taxaw julli. kooku ay maamu na Cheikh Sadbou maamu Cheikh muy dox montagne yi naan ko wax montagne yi naan ko joxoon ñu doon urus nga utiliser mu leen mukk yàlla rek laay xaar. Mhm. garab yi naan ko laal ñu doon ay billets banque yu bees sax mu bañ. Mhm. kon tey ku ñàkk defal sa xel ne yàlla dalaa boole ci xeetu yonent bi. ñi am nañ góor mhm. xam ne ñi ñàkk yàlla ku mu teg coono dalaa bëgg. yow mi yàlla jox alal xamal ne dalaa teg. dalaa teg mission dala jox mission boo xam ne boo ko emplir boo ko remplir boo ñëwee mu rëq sa nit dimbaleel nit ki may ma daaneel dimbaleel nit ki te yàlla rek tax bu ci xool dara mhm. bul may nit di ko yëgale mhm. bul may nit di ko ndamoo mhm. bul may nit di ko ndamoo parce que téeméeri nit a ngi tëdd hôpital feebar ah yoruñu lu ñu fajoo nit war leen dimbali dimbalu leen yàlla jox koo xam ne mi ngi ay milliards su bëggee saw bu demul hôpital du saw gis nga fi ba tay 4-4 mhm. lay gaare daw ñu branché ko mu saw. Mhm. tey kooku bu fekkoon baadoolo mu toog baadoolo nu kaay ma jox la sa wér nga jox ma alal bi daan ko day daw ba lan la ko xaalis boobu mhm. balaa ngaa saw ñu branché la. yaa ngi dégg. yor ay milliards di am problème mu rein. moo tax man a feebar ñi nga xamante sax ay baadoolo lañu. wax ko sax bi parce xam nga luy problème. gis nga nit jàppal say mbokk. coxal say mbokk cër. Mhm. dimbaleel say mbokk. te wëral àdduna ba mu daj. Mhm. ñi bàyyi woon seen mbokk yëpp ba ñu feebaree dañ leen delloowaat seen mbokk. Mhm. seen mbokk ay yëkkati mooy tëral seen mbokk koy def lépp. su yeggee ci fu ñu ko waree làpp sax dama ciy yegg mbokk mee koy laab. amul ku fi feebar jàmbur yi di ko yëkkati di ko tëral. ku ko gis dama ko wax ci benn kër. jàmbur yi ngay topp. ah waaw boo bàyyi sa mbokk ndax alal nag moom koo xamante ne dem na ci jàmbur. Ah. jàmbur bi di ko yëkkati. Mm. di ko tëral di ko laab amul fenn. sa mbokk lu mu mën ci li mu mën ci man kenn mënu ko ci yow. ko ci yow jàppal sa mbokk dimbale ko ci yow dimbal nag du xaalis. boo yaakaaree nañ dimbale nit ñi. Mm. soo amul xaalis dimbale ko sa xel. sa xel ko sa coono. Mm. dimbale ko ci li li nga ko ëppalee. ëppale bi nag du alal. soo ko ëppee xel conseillé ko sa xel. yaa soo gisee dara nar ko dal wala xamul nga woo ko. delloo si ko. dimbal du xaalis rek de noo ko mën a dimbalee rek sa xel sa coono sa lépp sa diine lépp si lu sa lépp. Mhm. mais àdduna bi. moo toj. adduna bi ku dàq fen. Mhm. moo fi ëpp xaalis ku dàq mooy yàlla. moo fi ëpp xaalis gën a mën a triandé. moo fi ëpp ku gëmul yàlla gëmul dara. Mhm. moo fi gën a ëpp xaalis ku mën a toog ci télé di tagg ñëpp moo fi ëpp xaalis. ki dàq saaga ndey la ñuy gën a xool moo ëpp ay vie. yaa ngi dégg jamono ngi tukki. àdduna mooy tukki. ku xoolal ku dàq ak Sénégal mooy njëkk tukki yeneen dëkk yi jàppal li ma la wax. Mm-hmm. Sénégal dina tukki yeneen dëkk yi duñ <laughs> parce que xam nga la déglu na ma la xam nga man la Sénégal dina tukki yeneen dëkk yi duñu tukki. Uh-huh. Sénégal. Uh-huh. da gis xale bu am sept ans. Mm-hmm. def concours. Mm-hmm. dem dëkku naari def concours alxuraan. jël paie. média yi duñ ko sa waxtaanee wala buñ ko mayee benn cinq minutes pare nañ ci. billaay. ku mel ni saagakat bu bon bi <laughs> ay millions lay laal par weer ndax saaga yi muy def. moom la gën a seetaan. wala muy weer ay moroomu jigéenam ay moroomu jigéenam di ko may ay vues. xoolal loolu. tele yi ku bonoon ba bàyyi yaay toog ci télé yi di liggéey <coughs> ngeen baal ma xoolal li ma la wax. ñi fi daan def ay guddi temps nag ay ñi fi wane seen. barke dem boo Ndiaye wane seen taadi fii nangam tey ñoom la tele yi di jël ñoom lañuy ñuy takk di leen may ay 10 millions ñoom la ñuy defal genre yaa ma gën a xam ñoo gën a siiw xale yi toogoon seen wetu ndey rek la baax kenn faalewu leen ñi gën a bon yi xool leen télé yi sax bu ñuy jël ñoom la ñuy jël amuñu lu ñu def ci télé da gis koo xam dina nekk ci émission tele suba ba ngoon jot maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw jàllale musique maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw jàllale musique ñoom ñooy liggéey ñoom ñooy xam dañu jàngoon ba yor ay diplôme mhm. toog fee toog fee si coin bi liggéey yor sa mhm. parce que sa taar ngay wane ci télé mhm. da ngay sol benn tubay bu rafet sol sa benn o yor émission télé yow chaque jour maa ngi gërëm diw maa ngi gërëm diw jàllale jàll mais ba kañ lan nga jàngale yor ay kat kat yor ay kat yi appartement yi baax léegi ñun baa doole yi nekk fee di sonn

dañu doonoon nit ñoo xam ne yàlla dafa am nu mu leen rusee billaay mhm. seen ñaanuñu tee waaye bu ñu amuloon ñooñu dëkk bi tremblement de tey yi ngay dégg ci yeneen dëkk yi am na fi parce que fii ñoo gën a bon <laughs> billaay walaay talaay ñoo gën a bon <laughs> ah macha allah ñoo gën a bon ah, Tafa waxtaan bi neex na trop waaye waxtu dafa mel dañuy commencé xoj parce que nee bu ñuy wax rek ci am ak ñàkk rek ñu fi jógee dinaa baat bu jeex parce que nag wax dëgg yàlla chaque jour ñu gis da nga xamante ne sénégalais yi ah, wala monde sax ñu ngi koy dund te nekku Sénégal kese dama ne monde entier la parce que ñoo ngi dund muy lu métti lu naqari si xol yi muy ñàkk dafaa ñàkk rek dafa metti rawati nga gis ka nga xamante ne dafa am nangoo jàppale kenn rek dafa métti loolu nag mun naa def feebar dafaa nga tiim say njaboot a leen jox sax lu ñu ndekkee chaque jour yaa ngi togg suuf ba am suukar di leen jox kee moo ngi rey ay xaram moo ngi njoñ ay ginaaram yow sa doom ngeen tiimu ngi di leen defal ba amul suukar loolu métti na ne leen xoolaat toogaay yi nan leen defaraat toogaay yi nan leen defaraat jukko yi bu la yàlla teralee jàppale ñi nga xamante ne amuñu nga suturaal leen teral leen nit ki bu nga ko may sa loxo ndeyjoor sax loxo càmmoñ du xam na jox nga ko ñu bàyyi puukare bi puukare bi dafa tooy na waar balaa may tëj rek mosal ma si tuuti rek ma daal di tëj bi. puukere bi quoi. waaw ah, bi puukere bi. mais dafa am ñoo xam ne moom dañoo xam ne seen alal moom ah def ci jaay ci tiital rek lañ ci war a def. gaare sa oto wàcc bu leen taxal sama oto sa yaay sa doo nangu mu laal la. yaa ngi doo bëgg kenn laal sa oto pour yow yaa gën ñëpp. eh Tafa doo am na ka nga ne moo ko yor oto jox yaayam 200 nekk nga jël bus. moom mu dawal oto ah. dama wax na. dafa yor oto du romb ba nuyu nit du romb ba xool nit ki yëgul sax nit yaa ngi dudd te yow boo deewee yow nit yooyu ñoo lay sang ñoo lay defal yow ko ci mën a jox sa oto def sa bes bes bu ne muut gis nga <laughs> laak ñoo xam ne lool rek la ñuy dund mhm. ñoom dañoo jàpp seen bopp ne ñoom mhm. alal yi dañ ci convaincre ku leen neex ñoom jàpp nañ ca rek yow man xëy am sax dañuy baatare yàlla pour mu bi aljana ñu dugg <laughs> ndeysaan dañoo comprendre dara mhm. ñoom dañoo yaakaar ne ñoom léegi seen lépp a baax. te gis nga diggante dund ak feebar ak dee ak a gaaw mën nga dox tey sa bureau ñëw dem def sa benn affaire benn cinq minutes. yàlla yónnee lu ndaw mu ne kat fii nga bëgg dox mu tëdd. nga tëdd mën nga të est xam ne mën nga tëdd ci benn diggante cinq intervalle cinq minutes mën nga ci daanu feebar. nga bis boo dund jóg dox dem ñëwaat sa kër. ne alhamdulilahi rabil alamin moo tax ñu yor xaay ñoo comprendre dara. man li dama leen ci man euh duma wax sama xel sumay wax ci affaire ba partage sama xel dafa dem ci sama mag yalla ko yalla yeureum taxal ko oh, baax du du du du du ñu bok tax ñoo bok nday ak bàyyi mom mm-hmm. gatt fan lañ koy joyal mm-hmm. waye ko xamante ne ba mu yore loolu dara mm-hmm. daraan dig di la dig balay may lu mu mom ba mu yoree noonu la dundé taron may bay wurtu hôpital yi di xol ñam ordonnance di len di len dimbalé yalla ko yalla ñu te yàlla jëlee na ko fi koo xam ne papaam toll na benn instant yoo xam da doon naaw waaye da ko doon topp naan comme li nga wax oto yóbbu ma dëkk ba yóbbu ma dëkk ba di ko ci mere di ko ci saaga paa bi commencé woon neex mun ma tafaa tey ñëw xëy moom di wax moom sax loxo bi ci poos bi la koy la société bi soxla. waye du guddu fan. yalla nako yalla fan yàlla na ko yàlla xare aljana. amiin amiin ñi ma koy fàttalikoo nii yàlla na ko fekk mu tëdd ca. aljana yi ak bu gën a aduna dal mi ngi non ba muy genn aduna ma ngi moom tok toog waxtaan mu ne ma ngi dem bërëb sàngam ñëwaat accident ci yoon bi. dërëm kon képp ku ne war nga xam ne. Mhm. yaa ngi dégg te bu yalla doon ray ku ñak rek lay ray kon moo ma ëppale woon foofu juróom man may dee mu dund. Mhm. yaa ngi dégg mhm. waaye nañuy xam intervalle cinq minutes. Mhm. doomu aadama loo am alal am alal mën nga ci mhm. mën nga ci feebar mën nga ci génn àdduna mhm. ñi am yàlla teral leen am na ñu koy def nag am na ñu bare ñu koy def mais am na ñu bare ñu ko deful mais nag gis na ñi koy def bu ñu bu leen ñeneen ñi ko dul def jàppale woon kon au moins bu bu dajul liy manqué du bëree nañ dem ci hôpital yi nañ ñuy waxtaan ak seen waa koñ ñu leen di wax problème ya fa am ndax yàlla may la nañ bàyyi di woo nit ñi seen intérêt bopp rek seen intérêt bopp rek tey boo duggoon sa 4x4 lu mu tooy tooy tooy gis nga nit bul dund man man sama fan da ngay dugg sa oto départ. alal bi dalay sonal sa biir bàmmeel tasaare ko walla ngay dee la nga mënoon mënatoo ko weñ yaa ngay mbiw mënoo leen faxas woo nañ sëriñ bi mu faj la mënoo wér yóbbu leen la hôpital noo wér tey fan mooy sa kër bàmmeel bu bees ubbeeku na morgue baa lay xaar kooku dafa wax wax bu am solo. woy bu am solo eh, nah, ya, la woy di nongolo ni ko taw bi taw sa kaw gàncax gi sax doo mën dem nga xam ne yàllaay borom jaar yàlla mooy borom jaar parce que sa alal di nga fi bàyyi woon dama la ciy jox benn misaal rek mën mhm. nga yor sa alal mhm. denc sa compte bancaire ya. mhm. di ci def saf parce que ko ko bis ñu def lu saf te ko eh! ñu ci jeex ñu ci kat kat <laughs> ya. di ci maye. Uh-huh. nga tëdd fa nga tëdd tuus nga ci dul ma balaa caa mm. doo ci def lu baax balaa ngay yegg foofu mm. ki ko ciy def defaloo la ko boppam la koy defal ndax bu ci dawalee oto boppam lay dawalal mm, bu ci saraxee mm-hmm. boppam la saraxeel mm-hmm. yow bokkatoo ba sa heure jotee yàlla du la ci may dara nee ko point point fii nga di bind naan ay virgule yàlla du virgule de point lay def mu yem fa alal dem ci def lu ci nekk yow doo ko fekkee góor góor lu ci mm-hmm. jaamu ci yàlla def ci lu neex yàlla defal lu neex yàlla rek yàlla leen rek moo koy lan moo ko neex. Mhm. yàlla dafa bëgg doomu aadama. billaay yàlla dafa bëgg doomu aadama. lu ne doomu aadama la ko yéene fonk jigéen. bu ko neexoon def ñu yàlla bu ko neexoon yàlla am ah, njaboot. xam nga yow kay dama lay yàlla bu ko yàlla bëgguñu rek a tax amul doom. billaay yàlla jurul kenn kenn juru ko. billaay bëgguñu moo tax amul doom te yàlla bu amoon doom di nga cofeel doom nu mu mel. di nga yor sa bi mu baax lool. Mm. sa doom da jooy nga jël ko jox ko. waaye yàlla bu amoon doom doomu yàlla di jooy ci jant bi. yàlla topp mbëggeelam jox ko xam ne mu mën na wuddeel jant bi ba mu neex ko sànni ñu ko ñun ñëpp dee bëgg ñoo tax amul njaboot du dëgg <laughs> kon nañuy bëggante waaw macha allah émission bi nag gis nga émission bi neex na am na solo te am na njëriñ leneen lu ñu damay faral di wax chaque jour rek xasuñu kenn bëgguñu tamit kenn duñu ngañu ñëwuñu tamit pour ngañu ñi ci dañuy xool la nga xamante ne askan wi moom la ñuy dund ñu daal di ko indi biir Grand TV ëttu Faatu daal di ko partagé waxtaan ak yéen waaye jukki rek pour ñu ma defaraat jukko yi soppaat yi bu baax a baax a baax teretewaat jukko yi mun a jàppal ña nga xamante ne amuñu mun a jàppal ña nga xamante ne seen loxo jot ñu seen ginnaaw du fi jeex mu ngi fi am pagaay di wax na rek walaa may tëj dëgg damay daal di jox tafaa rek mu daal di tàggatoo ma daal di tëj waaw man ma wax rek du ma tàggatoo <laughs> waaw ndax damay ñëwaat incha allah. waaw <laughs> ah, da ngay ñëwaat. <laughs> waaw man daal lenn laa ci wax. Ah. na gars yi émission bi teguñu ko rek. Mm-hmm. pour nga déglu ko rek. yow mi koy déglu. Mm-hmm. defuñu ko pour nga déglu ko rek pare ko dañu bëgg nga jël li ci baax. Mm-hmm. parce que mu ne ñu lépp ci baax. xoolal li ci baax te yàlla tax nga utiliser ko. muy sa njëriñ. li ci bon nga jéggal ñu ci xam ne ñun ay nit yi wax lañ bëgg mu baax moo ñu taxoon jóg. di ñaan yàlla tamit. yàlla nañu yàlla dimbale ba lépp loo xam ne bëgg nañ ci émission yi mu jàll ci nit ñi jot si yàlla yeggala ñu ko ba mu jot ba nit ñi jot si à travers Grand TV di ñaan yàlla suñu télé bi yàlla na raw télé yëpp amiin amiin amiin yàlla na télé yëpp topp seen ginnaaw topp suñu ginnaaw <laughs> yàlla defal ñu jàmm nag maa ngi sant yàlla bi may yeewoo ci jàmm mm-hmm. ba ñëw def émission yàlla na ma ko yàlla defalaat suba defal ko mboolal jullit mm-hmm. waaw gërëm ñëpp sant ñëpp mm-hmm. caméraman beeg réalisateur technicien bàyyi ma kenn <laughs> di gërëm sama jigéen ji nga xamante ne tey moom xam naa ko parce que dama naalagul café quoi dama naalagul ma dafa ñëw tey ah, bi émission bi dama koy jëlee au cœur parce que dama ah. koy dund di ko samay morom di ko dund te tout récemment barke Demba Ndiaye gis nga xale bi ma yoroon di ko defal social mm. ordonnance bu mujj bi ñu ko doon jëndal sax ba ñuy dem hôpital lañ leen woote ne xale bi gaaw yal na ko yàlla yërëm te xale bi àjjana ko jàlle mbokkam yëpp mm-hmm. waaw jaayub gars yi bëgg naa ñëpp ما شاء الله دين وحنا رك دوما تك دوما نوي سما كبر ما نبغى خبر ترى بلي بلي ره ترى فرد تما نسيري يلا ترى بس ريف أبو لمان يا بكم دوما وان نوي نك أبو لاي بنا خمن ترى مو ديك سوا الخير مي تكني ساي بنا خمن ترى بلي بنا كم وانتي مو نرى فرد مو نلا سوا بول بنيا ودي ما شاء الله دوا حنا رك دين ني خير بس بنشاء الله من من فرقاس دين وحنا بأمس ولا تفاح mam mosal lañ tudd doo bàyyi ba suba rek ba bàyyi ba suba rek <laughs> sama na lay ba ñu da ko préparé da ko préparé ah bett ma rek ma lay bett rek waaye yow fépp nga mën a ñàkk ñàkk tànga sos bu ñëw ànd nga ak moom waaye macha allah du nuyu ka nga xamante sama mbokku taaliba la muy mama faal borom ku baax taaliba sérif amuli maanaam yaay bi nga xamante ne yaa ngi yaa ngi def lu baax mama faal te boo doo boole dara ko wax maa ngi nuyu baax mama faal di la ziar doo jox sa wàccu waaye nuyu nag sama sama dom. sama xarit ah macha allah muy seenu Fall jokkul ah ndeysaan taaliba Cheikh na Cheikh Sadou bi jàmbaaru Serif Alwali Maane Njaay bi maa ngi koy nuyu baax seenu Fall borom jokkul waa kër Cheikh Al Mahdi yépp nuyu naa leen samay mbokk taalibe di leen jox seen wàccuwaay di leen màggal bu baax a baax di leen wax na rek ba suba incha allah même heure même fréquence di leen wax na rek mu ngeen dem suñu seen youtube ngeen def Grand Yoff TV ëtt Fatou ngeen mën a gis seen émission yépp waaye mu ngeen dem tamit youtube def Grand Yoff Info da ngeen gis émission yi wala ngeen toog seen télé def 44 daal di zappé Grand Yoff TV ñu indi leen ay waxtaan yu neex ay waxtaan yu amul fenn ay waxtaan yi nga xamante ne boo leen ko déggee rek macha allah da ngeen bég da kontaan parce que nag fii bu ñu fi toogee rek yéen tax ñu toog fii yéen nañ fi nekkal di waxtaan ak yéen te du ñu dépassé benn yoon te du ñu indi affaire rewand benn yoon parce que nag mbir bi nag safante la man maa leen saf ma saf leen kon nag ba suba bi Grand Yoff TV ëttu faatu ànd ak